jëm ci poste premier ministre ak kii jiite assemblée nationale ñetti fan yi nga xam ne moom la ñu dëgmale danañu ci xam li leer ba leer ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci la ñu bëgg mu jiite assemblée nationale yéen kaay gi di Rewmi Quotidien na ko may ma yeggale en tout cas li am ba des sàll mooy allié yi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall tekkeetuñu dara ci lu jëm ci wàllum politique yéen kaay gi di nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar am ci ñu génn tey ji Macky Sall dana leen dalal ca palais waaye nag journal bi nee na Macky Sall ngir nag mu tee majorité bi il faut mu jëfandikoo xaalis waaye tamit il faut mu jëfandikoo bi yees bi nga xam ne moom la bëgg a samp waaye tamit au conseil des collectivités territoriales mun ta ñàkk jël ay nit dugal leen fa bu bëggee nag tee majorité bi correctement enquête yéen a kaay moo ni gis yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mën nañoo wax ne Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Sall ñoom ñett ñëpp ci surge la ñu nekk i mbir dara leeru ci ndax gouvernement bu la ñu teg te moom Sonko bu xeexul bu baax a baax soo moytuwulee caaf dina xam làmbaay ñaaw moo tax journal bi nee ñett ñi ñëpp seenu bokk ci élection présidentielle 2024 maanaam gëll góose na te mbir la mu ñuy xoolaat yéene kaay gi di Le Quotidien nee na Ousmane Sonko moom ci boppam njort na ne élection présidentielle 2024 mën na see am ay jafe-jafe te nag bu am na si jafe li nga xam ne moo koy waral mooy dossier Adji Sarr moo tax Ousmane Sonko woo ay militant ma maanaam ñu a amnistie Karim Wade Khalifa Sall ndax tension politique bi ci réew mi mën a jeex yéen kay gii di li ñu xëy fekk fa Mame Diarra Fama nee na intercoalition wàllu Sénégal ak Yewwi am na ñoo xam ne intercoalition yooye moo leen tere na law waaye nag nañu ko tàyyi collaboration bi dafay wéy ba 2024 yéen kay gii di la Soleil ñu xëy fekk fa direction du commerce intérieur ñoom nag ñoo ngi dalal xelu askanu Sénégal ci lu jëm ci wàllum soble si nga xam ne ñàkkoon na ba pare seer journal bi nga xam ne gars yi doon ñu ko jaayee 2000 jàpp 2500 ba ko ndax prix bi ñëwaat na fa mu nekk kon te ñi nga xam na ñooy direction du commerce intérieur ñoom nag ñoo ngi dànkaafu journal bi nee na ay toni toni soble soo xam ne teg nañu ko loxo ca diwaanu Touba yéen a kaay gi di source a nee na en bi ma ngi ñi nga xam ne ñooy commerçant yi journal bi di direct news moom nag nee na bëri ay tonu soble yoo xam ne teg ko loxo yéen a kaay gi de la soleil nee na ñi nga xam ne ñooy waa DIRPA nee ma armée bu Sénégal andi nañu ay leeral ci lu toll ci 1300 soldats sénégalais yi nga xam ne ñoo nekkoon Mali te ñu leen fa ndax Ousmane Sonko waxoon ne engagement bi Sénégal jëloon ci wetu Mali ngir jàppale leen lu jëm ci wàllum kaaraange Sénégal daf caa deltu ginnaaw loole nag armée bi weddi nañu ko nee nañu 1300 soldats sénégalais yi nga xam na ñoo nekkoon Mali te ñu jëlee leen fa maanaam loolee c'est normal ndax mbir mi rotation la dafa am ñoo xam ne bu ñu leen fa yóbbu bu ñu leen fa jëlee ñeneen la ñu fa yóbbu yéene kaay gi di 24 heures xëy duñu xibaar naan ñu François Mancabou mi nga xam ne moo faatu woon ci kasu bi ay mbokkam jamono ji dañu leen di woo téléphone di leen di menacer loolee moo tax avocat François Mancabou daal di porte plainte réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu am na moodu moodu boo xam ne teg nañu ko loxo ca diwaanu ba muy wàcc sa aéroport Berlin la ñu ko jàpp la ñu koy tuumaal lu jëm ci trafiqué ay doomu aadama ñaari jigéen ak benn xale bu góor yéen kaay gi di Vox ñu xibaar accident bu metti bu am ci yoonu Tàmbawe diggante Sakaar ak Tamba lu toll si juróomi nit ñoo si ñàkk seen bakkan ñaari bus ñoo laalante yéen kaay gi di Rewmi lu jëm ci wàllum tàggat yaram nee na ca diwaanu Allemagne mayo Sadio Mané moo fa gën a jar mayo Sadio jamono ji dañu koy xëccoo yéen kaay gi di Walf Fadjri na Idrissa Gana Gueye mi nga xam ne ko waroon a transféré jëree ko Paris Saint-Germain yóbbu ko Everton loolee